ñu ngi leen di nuyu nuyu bëggan tedd te mooy nuyu lislaam te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa di leen ziyaara de leen ndokkeel ci weeru tedd wi waaye ñu doon jàngat ci stadio Farokh TV ci internet bi da ci jàngat tomb yi nga xam ne mooy tomb mi ngëneel li li nga xam ne mooy koor ñu tolloon ci ñeenteelu tomb bi yàlla yaalamu fadalahu ilallah kenn xamul ngëneelal koor ku mooy yàlla mi ñu ko indil kon nag ñeenteelu tomb bi moo di kasratul atq min an niiraan fi sar ramadan bokk na ci bari lu yàlla de goreel ci weer wii ñoo xam ne dañ waroon dem safara yàlla goreel leen jéggal leen dugal leen fi nga xam ne mooy aljanna kon loolu nga leen la boo xam ne bu rëy la yan ci yàlla boole ndax fan abi hurayrata radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam walillahi al-utaqaa'u min an-naar wa zalika fi kulli layla yàlla di am na ñu mooy goreel ci weer wii am na ñu mooy goreel ci weer wii ci safara guddi gu jot am na ay junne junne yoo xam ne yàlla dana leen goleer libéré leen ñu dem ñi nga xam ne dootuñ dem li nga xam ne mooy safara waaye aljana lañ jëm waaye yal nañ ci yàlla boole ak képp ku ñuy seetaan ku ñuy déglu yal nañ ci yàlla boole. hadis boobu waaye nag wa zalika gorel googu de fi kulli laylatin ci bépp guddi rek yàlla dana ci gorel ay junne junne doomu aadama ñoo xam ne dañ doon dem safara yàlla dimbali leen ñu war a dem fi nga xam ne mooy aljana yan ci yàlla boole rawaahu termisi termisu moo ko nettali wa ibnu maaja kon bokk na ci li nga xam ne mooy ngëneelu koor mooy yàlla dayay goreel jullit yi ñu dem jokkee yàlla subhaana wa taala dimbale leen ñu dugg fi nga xam ne mooy aljan ndax a ah, waxoon naa leen awaluhu rahma wa awsatoon maxfira wa axiru atqun min an naar waaye fan ya mujj ya daal yàlla dana goreel jullit ñi ci li nga xam ne mooy safara ba ko juróomeel mooy ramadaana sahrun kathiirun xayri wa qalilu sarri wa huwa sahrun sahru tawbati wa taxayuri wa taxyiiri ila ila al ahsan mu ne weer la woo xam ne weeru woo xam ne wu bëri ay yiw la wu bëri njëriñ la waaye weer la woo xam ne it yàlla day gën a yaatal gi doomu aadama yi waaye weer la woo xam ne itam wu néew li nga xam ne mooy safaan la safaan yàlla danañu dimbale ba weer wi du ci am te yàlla ñu ci yàlla yàlla ñu ko yàlla defal mu ne weer la woo xam ne itam weeru tuub la tuub ci tuub yàlla jégal ay bakkaar kon nañ ci bëri li nga xam ne mooy istigfaar waaye weer la woo xam ne itam weeru soppeeku la bépp loo meloon ci melo woo xam ne welu sofaan la boo góorgóorloo ci weer wi ndax weer wi dafa ñëw pour taskiyatu nafsi mooy sellal bakkan al amara bisu bakkan bi nga xam ne moom euh, lekk naan sëy rek moom la soxloo mook saytaane waaye weer wi daf leen a daf leen a euh, lottal lool ci li nga xam ne mooy weeru tedd wi seen liggéey du dox dara bu ko defee weer la woo xam ne itam weer la woo xam ne daf ñuy jëmee ci jëm ci rafetal ndax rafetal gi mooy jël ba ngoon jot nga jël sa tàndarma joxe suukaru koor wala nga jël li nga xam ne mooy sa meew wala nga jëm li nga xam ne mooy sa kafe wala li nga jël li nga xam ne mooy sa sukar wala jëm li nga xam ne mooy sa say si wala lu mel ni ay boisson nga joxe ko ngir yàlla weer la woo xam ne it dafay jëmale nit ki ci jëm ci rafetal ndax na abi hurayrata radiyallahu anhu qaal qaala rasulullah sallallahu إذا كان أول ليلة من شهر رمضان وينادي منادي يا باغي الغير يا باغي يا باغي الخير أقبل ويا باغي السر أقصر yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nett leen ci abi hurayrata mu ne bu jotee guddi gi njëkk ci weeru koor Euh, mu ne dafa am benn woote kat boo xam ne malaayika la day woote am na ñoo xam ne dañu ko dégg am na ñoo xam ne seen lisaalu xaal moo koy dégg nee na wootekat boobu lu mooy wax mu ne ey yow aji def ji yiw ey yow ki nga xam ne lu baax rek ngay def ñëwal ñëw leen yéen defkat yi lu baax yi ñëw leen waaye yéen defkat yi lu bon yi bu leen ñëw na ngeen taxaw ndax weer wi du weeru def ko loo xam ne lu bon la képp ku ci def lu bon dafay nekk bakkaar boo xam ne bu rëy la kon nag yéen ñiy def yiw yéen defkati yéen dimbalante nit ñi ngir yàlla weer wii weer la woo xam ne malaayika mi woo na leen na ngeen ñëw def li nga xam ne mooy teraanga ak yiw waaye yéen ñi nga xam ne ay def defkati safaan ngeen mooy ko te yàlla ngeen na ngeen moytu xam ne weer wi képp ku ci mooy yàlla sa bakkaar yi da koy fulandi te yàlla dalay dugal fi nga xam ne mooy safara te yal ci yàlla boole musal yàlla subhaanahu wa am na yërmaane yërmaaneem taawi na ko ci weer wi ba mu yaatoo yaatu lool nga xam ne képp koo xam ne nii rek yaa ngi ci weer wi boo góorgóorloo nu mu yem rek yàlla dana la dimbale boole ci ñi nga xam ne moom la ñoom la di yërëm kon nag yal yàlla boole ci ñi muy yërëm yal yàlla boole ci ñi muy jëggal yal yàlla boole ci ñi muy eh, texel ci koor gi in uridu ila al islaah ma stataatu ma tawfiqi illa billah